salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal. ñu am mbégte am ak émission kii di Abdoulaye Khouma. nekk responsable politique fale ci Kaolack. di xaritu président Macky Sall di doomo <laughs> ah, di militer ci dëkku Serigne Mboup. moo leen gagné ci élection locale yi ñu génn Abdoulaye Khouma nga dimbali woon ko. Hmm. Euh, ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ñu bàyyi la nga nuyoog mbokku Sénégal. bon maa ngi nuyu auditeur internet u Sénégal yëpp di ko seetaan di leen di ñaanal jàmm di ñaan jàmm ci Sénégal di leen di leen nuyu yéen waa Sénégal di rafetlu encore invitation bi ngeen ma invité fii ci émission bii ñu war a def ndax xam naa ne émission bu nar a neex lay doon. Kaolack bokk na ci dëkk yoo xam ne président Macky Sall tamit mënu ko contrôler noonu à 100 pour cent na fo ay responsable quel seen biir. problème réellement Kaolack dëkk Macky Sall la woon Macky contrôlé woon na Kaolack Kaolack depuis à l'époque élection deux locales yi 2014 yi buñ jàllee ñu dawal tuuti Mimi Touré naroon na jógee Grand Yoff dama lay nettali benn anecdote ñëw Kaolack man maa njëkk alerte alerté ma ne ko un équipe qui gagne soxlawuñu renfort soxlawuñu leneen ku si nekk na toog goxam gañe ñun ñu ngi gañe amuñu problème te boobu ñu ngi doon gañe à soixante dix pour cent élection législative 2007 yi 17 yi ñëw ñu gañewaat ko mais keroog bu ñuy déménagé woo Mimi Touré tête de liste nii woo ñëw kaw la ci lañ tàmbalee perte. kon da ngaa bëgg a wax ne mu Touré bokk na ci li waral. ngeen am jafe-jafe kaw la. moo bokk na ci moom ak ñeneen ak ñeneen te dinaa si ñëw ci kanam. ñoom ñëpp tax na am na lu tax ñu naan war na ne ne looloo tax ñu perte parce que un équipe euh, gis nga équipe buy gagné dañ leen a war a dooleel dañ leen a war a jox espoir ñu dem mais bés bu ñu yëkkatee équipe bi changé teggi teg nele indi beneen équipe rek jafe-jafe àddina commencé na. te le président de la république Macky Sall di suñu président de la république di suñu président partie dëgg-dëgg moom ku baax la ku dimbale kawlax la ku bëgg kawlax la mais lu ko xaw a tuuti rek muy faucon pale yu ko wër hmm. faucon pale yooyu ñoom ñoo créer un autre équipe pousse équipe buy gagné ci Kaolack te buñ ko créer ba tey ci defet la ñu nekk. faucon yooyu ñaan la par exemple. faucon yi bëri nañ nañ dem ba ci biir émission. bi yaa la tudd par exemple xam nañ ne pale la toog surtout mu Saleh moom man je le. Euh, keneen ki tamit euh, voilà seen bëri na bëri na faucon yi am na ñoo xam ne dañ leen yaakaar ne duñ ci dara fekke ñoom ñoo def yëpp. ñoom Morlo. ah. Morlo ci dëggoo li ma la wax bëri na bëri na ñoo xam ne ne ñooñu sax mun nañ bari mais ñeneen ñi ngi ca biir Mahmoud Saleh moo ci gën a fës Mahmoud Saleh am na Pape Samba eh, protocole bi am na nga fa keneen ak keneen man tu dafa am yoo xam ne ne. maanaam bëgg ñu toog pare. Hmm. ñoom lu fa nekk di ko defee. ñoom ñoo décider li fa ne te li ñu décider noonu moo indil tolof tolof yi président Macky Sall Kaolack. mais lu taw teeloo ko woon wax président naa côté bu ne deux mille dix neuf deux mille vingt vingt deux mille vingt et ba si élection locale yi. mois d' bi bii avant ñoo dem élection locale alerté naa leen sorti yaa ngi Sénégal ñu ngi ci site internet yëpp ñu ngi ci presse bi ñun lu ñu mën mooy alerte ñun lu ñu mën muy yëglu ba ci élection locale yi barki Dembo Ndiaye def naa benn sortie ne président dana perte commune Kaolack mm-hmm. te li ma am wax moo am bien vrai ñu ñëpp dem nañ fin bi oote nañ à l'unité oote nañ pour ñu voter mais boobu c'est trop tard mais yow ñu wootee l'unité dafoo ko jafewoo ko yow tamit. Mm. xam xam nga pour ñu wooteel Serigne xam nga dafa te moom moo loolu élection locale la. la mm. gis nga commune. lu sensible la élection local moo gën a sensible élection yoo mënta gis ci élection yi am Sénégal. Mm-hmm. élection local élection de mbokk la. élection de dëkk la. élection de am di jàmm la. ñett yooyu yëpp bu fekkee amoo ko ak sa commune munoo fexe ba gagné élection amoo fa ay mbokk amoo fa ay am di jàmb ak ay dëkkandoo xam nga mbokk mooy nekkul mbokk mooy mooy mbokk deret mm-hmm. mbokk mooy ñi nga entouré mm-hmm. nga am ñoom dëgg mm-hmm. di yëgoog ñoom di defanteeg ñoom ay teraanga fu ñu soxlaa nga tax bag ne na jaay doole yàlla mun na laa dënk doole mais doole boobu ëlbateku ko soppi ko yërmande ci askan wi boo ko defee rek da ngay gañe mais bu la yàlla ja wane am mayee doole may la alal nga jël doole beek alal ji bugg a jënd askan wi. bugg leen koo jaay xanaa kon ñi ñi ñi président jiital ci biir kawlak da bëgg a wax ne ñoom ak waa Kaolack ànd jàmm doxul seen diggante. non non non doxuñ ca ñoom dañoo yaakaar ne lu jot rek dañuy dem jënd cash doomi aadama te jaam jëndam jaam jeex na. ci Sénégal. loo indi bu élection jotee ànd ak président Macky Sall Modou Ndiaye kaaw Bitèle dinaa fa ñëw détail par détail nu mu def ba perte élection yi. la def ba perte élection yi. yow mënuñ laa inversir comme tête de liste départementale dans une coalition boo xam ne c'est une coalition mouvement présidentiel jéggi naa sax Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ndax am na ñeneen ñu bokk ci coalition bi te bokkuñ bennoo Bokk Yaakaar. moo tax ma ne coalition ñu jiital la président xool la. ak boîte bu mel ni Senelec ñu dénk la ko yëkkati di euh, yëkkati benn boo yëkkati jiite la ci tête de boo xam ne mu ngi compte plus de deux cent vingt cinq mille habitants dans la région dans le département de Kaolack ñu jël tànn ci kenn jox la nga jiite ko respecté woo waa Kaolack respecté woo responsable ñi nga fa fekk mooy ñoo xam ne ne c'est donc responsable authentique nanguwoo wax ak ñoom nga ne ñun jiitu la ci terrain bi olof njaay nag dafa am li mu wax ku la jiitu si néeg moo lay wax côté ban bi ngay tëddee ñu jiitu la ci terrain bi nanguwoo wax ak ñoom nanguwoo diisoo ak ñoom ku wax point de presse nga taxaw yow en personne si sa lamañ boppam nga naan daf may chantage ñun ñëpp ñoo bu ñuy chantage Macky Sall la ñuy chantage mais du Pape Demba biti yi parce que tey à cause de ñun ñii muy xeeb moo tax mu nekk directeur de Sénélec parce que ñun 2009 bu ñuy ànd ak Macky Sall di def 533 villages yi communes yi boobu xamuñu Pape Demba bi yi ànd ak Macky Sall ci beekoor beekoor la olof laa lay wax dëgg beekoor mooy jamono bi ñuy métti dañ daan ànd ak Macky ba ñëw reex tëñu ñu fexe ba fal Macky Macky cër boobu ñu jox ko ba jox ko réew mi ci signaturam boobu la jël signé la décret nommé la Sénélec kon nag da ngaa war a gërëm. ñu fa dax ba Macky falu loolu lay olof Njaay di waxee bu lëkk lekkee olom na ko gërëmee coy ndax coy bu taxutoon a bu taxutoon coy lëg du jot ca olom ba di ko lekk loolu yëpp ñu jël loolu yëpp ëmb jaay nit ñi réew arrogant wone na man maa yore les faucons du palais faucon yi taxaw tëdd palais nekk seen bureau climatisé naan diwa man moom Kaolack diwa moom Kaolack on se di la vérité tout les rense papiers yu ñëw ci renseignement généraux ñu changé ko. di di gonflé wala bu ñu wanee nit ñu wàññi kii gonf ah, ah, ah. def lu leen neex. <laughs> kon dafa jënd président nag c'est un président de la république. jiite wut Kaolack rek il a jiite toute une nation rawatina jiite un continent. kon nag ñu ko wër ñoo ko waroon dimbalee. ci dëgg ci dëgg. moo moo tax ba jafe-jafe yi ñuy toll naan bu ñu demee ba tey ñu naan ay benn nit la ñuy wër. pour am majorité ça c'est perte. est boo leen nekkee ak tamit mu koo xam ne xam ngeen ne ci perte la jëm est-ce que seen taxawaay bu njëkk war loon doon ngeen fexe ba quand dimbali ko mu gagné parce que bu gagné président Macky Sall mu gagné. am na ñoo xam ne ne tey boo leen doon sang ba suba. du ñu set yow yaay mujj tilim. <laughs> ñoom Pape Demba bi tey ci la bokk boo ko doon sang ba set suba kaw la du dem parce que il n'est pas politique dafa gëmut euh, il n'est pas politique d'abord amut masla avec les avec waa ak waa Kaolack respecté wut les responsables. mais loolu ñaar mooy am. mënuñ laa def tête de liste jour yi tabaski di ouverture campagne ñëpp am kër dakaar hmm. ñëpp am ay soxna dakaar bu ñu neexoon ñu buub suñuy soxna ñoo jullee si dakaar moom muy tête de mu mun a buub jabar ak njabootam dem julli ji dakaar ñun ñi nga xam ne du ñu tête de si pléian ay responsable ñu des ak waa Kaolack ànd ak ñoom ci fetu tabaski bi lu ñu mën ci ñu doolee mu néew mu bëri ñu jàppale leen ndax ñun leen ñu gisoon yow nga dem Kaolack ba pare nga julli tabaski munoo yëkkati sa benn téléphone oo benn responsable ne maa ngay ziyaare di la baalu àq nga ne da ngay ñëw gañe Kaolack mënul ne lu gën a ruslu ci li mu def mooy yow moom yow dangaa perte ngay zibilé kooku yabut peuple Kaolack Macky Sall la yab. le président de la République parce que na élection législative déggoo li ma la wax de. gagné wut élection législative yi dafa perte commune Kaolack c'est le département ki a venu avec son escort mu mu rattrapé moo tax mu gagné tey bu doon commune bi lu mu def la quatorze treize communes yu des yëpp def konoon du dëgg viwu te département bi ils ont voté pour Macky Sall son président de la République ndax Macky Sall liggéey bu mu liggéey ci monde rural bi moo tax monde rural bi delloo ko njugal parce que ñun xam na ñun ay dëkk ñun ay kaw kaw la ñu ñun ci àll bi lañ ñu ku ñu ku ñu ku ñu lebal ñu fay la guddi. d'accord mais yéen tamit am ngeen benn part de responsabilité parce que yéen euh, seen taxawaay warul nekk di prouver ne Pape Demba bi tey amul dara Kaolack mais seen rôle mooy ngeen fexe ba gagné le président. li ma la wax de quelles que soient les les circonstances quand meew boo ko yoroon tey soow paanu soow lu mu bëri bëri weex we bés bu si lu ñuul amee rek mën naa yàq soow mi. politique noonu la mel. génn ñu dem ci en tout cas actualité nationale. génn ngeen ci élection législative yi ngeen perte ko devant l'opposition est-ce que donc euh, jàpp nga ne mbirum troisième mandat moom tegoon leen ko ci suuf. duñ ko mus a teg ci suuf parce que dafa am loo xam ne loi la législative yi quand même. d'accord perte nañ par des erreurs de sélection. kon yow nangu nga ne Benno moo perte élection yi. non si parce que ku demoon am cent vingt cinq députés. Mm-hmm. génn avec cinquante huit pour cent aux élections présidentielles de deux mille dix tey bu ñu demee ba ñenn ñi naan 3 pour cent la ñuy ut pour pour pour pour am 50 pour cent kooku gàcce la li nga perte 3 euh, pour cent ak 8 pour cent 11 pour cent yooyu seetal lu tax nga perte ko. résultat yi ni gàcce la ci ci ci mais seetal yi ñu am bu ñu waxantee dëgg. gàcce la gàcce la musu ñoo perte Pikine su ñoo perte Rufisque. peut-être de 40 députés parti ngeen. déggoo li ma la wax de musu ñoo perte commune Kaolack. Saint-Louis waxi noonu. commune de Kolda. commune de Kolda waxi noonu. Sédhiou waxi noonu. localité yu bëri localité yu bëri nga perte ko. boo taxawee ne gañe nga it da ngay nax sa bopp. mais li ngay wax ne xam nga ne ñu bëri ñemewuñu ko wax ci biir benn. non dañ mais dañ koy wax te dee parce que ñun ñoo ko mun a wax parce que ñun ñoo créé APR. ñoo créé Benno Bokk Yaakaar ñoo accédé Macky Sall au pouvoir. léegi nga Eh, ñi ñi wër président Macky Sall ni li ma la wax de pour avoir un autre troisième mandat je le dis haut et fort foog Macky Sall raxas palais bi ba mu set wicc. Hmm. ba mu set wicc laa la wax. fekk def loolu bu ñëwaatee même chose lay doon parce que ñooñu seen intérêt moo leen fa teg. du deux mandats. Macky Sall pour suñ ko loi constitution bi yow xam nga jarul ñuy nekk fii di ci débat waa bul liir mais ñun ñi xam nañ ne deux mandats de cinq ans Macky mi ngi soog a nekk ci premier mandat de cinq ans mu dese ko benn mandat de cinq mu dem benn mandat fii nag lay toll liggéey bi fii la soog a tàmbali pour président Macky pour yéen président Macky Sall pour Benno Bokk Yaakaar. waaw lu mu diggee woon man pare naa samay mbir élection. non Macky moom Macky bëgg-bëggam la wax mais constitution Sénégal. Hmm. bu leen fàttaleeku ne Macky buñ ko nommee waxoon na ne cinq lay def dem élection kere bu mu déposé dossier bi constitution ñoo bañ ne ko on l'a élu une mandat de sept ans da ngay motali si sept ans ñun yoruñ constitution boo xam ne ne comme marché luuma la tey fii la suba fële constitution bu dëggu ay nit ñu jàng. nit ñu qualifié ay mag ñu yàgg te mag ñu dëggu ñoo fa ne. mais constitution tamit du forcer kenn nga dem wuti mandat. waaw bu ko neexee Macky ci boppam. waaw Macky ci boppam bu ko neexee tey mun na ne damay démissionner mais ñun waa Bennoo Bokk Yaakaar ñu accédé woon Macky Sall teg euh, comme un secrétaire comme le président de Bennoo Bokk Yaakaar. Mhm. mun nañ ne doo ko fi defee. dangay dem par da ngay dem. mu dem mu topp leen ci. day dem ci noonu. mbaa bu demu it tooñ na waa Bennoo Bokk Yaakaar te lu ne mun na ko cee fekk. bu leen tooñee. waaw parce que mënuñ laa jiital ñu dem ba fii nga ne taxaw ne dangay ngay bàyyi déedéet. mais est-ce que intérêt wu Sénégal ëppul intérêt wu Benno Bokk Yaakaar. déggoo li ma la Benno Bokk mooy Sénégal. ndax jàmmi Sénégal ëppul jàmmi Benno Bokk Yaakaar la. déggoo li ma la wax Sénégal du bennoo moo koy xañ jàmm du Benno mu benn Benno fu mu toll ci jàmmi Sénégal lay doon jàmmi Sénégal mooy lu constitution bi wax ñu ànd ci nu déposer les sept sages ñooy atte bu ñu ko attee ñu ne ah yoon nee na. ku ne mën def. mun nga bañ a dem ñun ñëpp ñu d'accord ko waaye yoon nee na am nga droit dese nga beneen mandat ñu dem campagne parce que campagne président ci ay carte lañ koy wàccee. mais du ay waxu constitution mais leen door ci yi est-ce que am nga droit sax amati envie di jëm ci ay yeneen élection surtout élection présidentielle. déggoo li ma la wax de la situation oblige. ban situation wan neen Macky Sall élection législative yi passé am municipal yi passé wan nañ ne kon ndaw ñi ñoo ñoo yori pouvoir. kooku mënatu ci dara. mu def wala mu bañ a def kooku mënu ya kooku yoon yàllaa ko ko wax. wan na ko ne ne ñi la nekkal ci biir fi ngay liggéey entouré la di la indil ay nit. naan diwa moom fii ak diwa moom lii wala diwa am moyen non non non non non. ndax Macky ba muy gagné 2012 amutoon moyen. amutoon moyen de. ñoo doon cotiser suñ fukki dërëm ak suñ juróom di dem campagne di cotiser deux mille deux mille deux mille francs par deux mille francs di dem campagne ba gagné kon na nit waratu koo wax ne diw moo am moyen moo mën a financé campagne kon nañ ko def tête de liste non non. amul rapport xam nga sénégalais luñ gëm ku leen yëg. Mhm. ku leen faale ku wàccee sa bopp. ak loo mënti doon. doomi aadama jàppal ne yaag moom a yem bu fekkente ni politicien nga te nga nangu ñu lay wax dëgg. ndax kon yéen fu mu toll nii président ngeen di déglu. président la ñuy déglu bu defee prime troisième jàpp si. même bu deful prime ñun fekk ñun jiitu nañ ko. pour defar terrain yi troisième mandat te buñ demee dañuy gagné. dangeen ñun jiitu nañ ko xaaruñ ko moom. d'accord procès Ousmane Sonko euh, gars yi bari jàpp kooku waxatoo leen mbiram. Hmm. parce que woon na leen ne moo leen ëpp doole kon fu mu toll nii ñemewoo leen ko. mbiru Adji moom tegee ngeen ko ne ngeen wut yeneen dossier pour tuumal ko mën ko daaneel est-ce que loolu dëgg man de pour yeneen dossier man procès Ousmane Sonko muy procès Adji Sarr laa wax. mais oh, pas yeneen dëggoo li ma la wax Ousmane Sonko man li ma ko jàppee citoyen sénégalais la li may wax chaque jour. Hmm. du gambien du mauritanien même bu nekkoon gambien sax gambien sax da nga ñu tooñ ko dañ ko war yoon nekk fi yoon da nga ko war a li may wax mooy justice Sénégal bu defut projet bii bu yeboo ñu libéré ñëpp hmm. waaw même bu fekkente ne. parce que amul sénégalais lambda amul ko même bu fekkente ne Adji Sarr moo tooñ Ousmane Sonko nañ atte ñu daan Adji Sarr mais plainte moo dem parce que am na ñu ñu tëj plainte moo tax ñu tëj leen. mais bii cas particulier parce que ma ne loo mënta doon. marqué terrain au dëggoo li ma la wax de munoo doon personnalité bay dem suite bëte dafa bëslu keroog premier discours ko lu ma doon xaamu na ma dew ma hmm. mais maa dem. waaw mais nit mën na dem te jàmm rek. non maa dem. ci ay xale yu jigéen dañuy dem massage euh, dañuy dem massage moo tax lu ñu fa fekk dañ koy assumer lu ñu fa fekk dañ koy assumer kon na assumer responsabilité am di ko tuumaal du Ablaye Xuma du Benno Bokk Yaakaar du keneen aji saar moo ko tuumaal ne ko danga ma doon sakku. ah yéen a nekk ci ginnaaw aji saar nag. déggoo la wax de bu yoon a fii bu fekkee ñu ñoo nekk ci ginnaaw aji saar yoon na atte yoon nekk fi nii aji saar nii Ousmane Sonko nii ma dema nii ma paatee. nañu justice Sénégal dafa jëng loolu xam nga nit ku nekk sénégalais surtout les leaders opposition lu leen arrangé ñu ne justice bi ko gonga bu leen arrangé ñu ne dafa jëng. <laughs> rawatina ñu naan ay choisir ñu naan activiste xam nga Sénégal dégg naa ñu naan acti mais activiste amul Sénégal. waaw lan moo fi am. Ah? nekk Sénégal. Macky Sall déggoo li ma la wax de. Hmm. gis nañu fi mu dem fi ba ci siège Y'en a marre. ne la dégg waaw tàmbalee ba ci suuf activiste amut. mais gis nañu Y'en a marre Macky Sall bu déggoo li ma la wax de. kon gaa yaa ngi fi de. dëggalu ma la activiste amut Sénégal. yéen tamit bu leen arrangé wul nga naan activiste amu fi bu leen arrangé nga naan waa wax ngeen dëgg. ay ay clientèle politique lu leen arrangé yaanaamaa boobu business am lañ doon jox ba seen business yàqoo ci ONG yi. business la bi leen Macky ñu dem. woo leen fi ñëw leen ñu ñu lànk. dëggoo li ma la wax c'est des businessman yow après gis na ku si nekk li ko daal c'est des businessmen ONG bu daan yore bu daan financé yaanaama bu ñu leen bloqué anamu dañoo mujj dugg ci ay <laughs> passeport diplomatique. cat la rek cat la rek waaw dugg ci ay. nga nekk quand euh, acteur politique fii ci réew mi nga ngay dundee ci réew mi ñàkkul na lu Sénégalais di yëg chaque jour xam nga ko la vie est chère dans ce pays. saaku hmm. soble dem na fi ba vingt mille francs fa ba hmm. cinquante mille autant pour moi kilo soble di jar deux mille fu mu nii mille francs ci marché yu bëri euh, mais est que jotul tamit président Macky Sall gëstu nit ñi sur le plan de la vie. social sur le gis nga foofu laa jël ginnaaw sur le plan de la vie bul fàtte kat 2012 2013 la dévaluation amoon Sénégal dévaluation bu woykat yi naan dévaluation bi métti na sonal nañu addina moo doxee noonu souvent coow day am ñëpp taxaw dana coow bi am fekk coow bi enrancé wuñu ca suuf hmm. du Sénégal àddina bi moo yokk àddina bi moo am dévaluation. Ah, dafa bari crise dafa des. Ah, crise xam nga lu des. communication au sein du gouvernement. ma ne crise na ñëpp xam nañ ne àdduna bi mu moo am kon nag déglu ma wax la bu président bi wax tamit xamal nañ. loolu laa la wax dégg li ma la wax dafa des communication moo des au sein du gouvernement lii ministre de la commerce dafa waroon communiquer wax lu xew ci àddina bi ministre des affaires étrangères taxaw communiquer wax àddina bi fu fuñ toll tey ministre du pétrole wax communiqué wax fu pétrole bi toll tey ministre de l'agriculture ñëpp a war a communiquer kon boobaa bu yokkoo dañuy xam ne Sénégal mënu ci dara lii Macky yàgg di la di subventionné ceeb essence essence bu mu yokkoo du tey essence bu mu yokkoo léegi ëpp na cinq ans mais terewut Macky ba tey day subventionné essence bi di ci perte ay milliards am moo tax dëggoo Sénégal yokk ba tey fi muy ba ay milliards askan wi di ko def ci essence ak gasoil tey bul fàtte ne bul fàtte ne gasoil essence dafa yokkuwaat gasoil ñu maintenir ko même prix da xam ñaata la ci président Macky Sall di fay pour prix bi yem fa. waaw mais a wax mais gasoil bi ñun da nga koy parce que gasoil bi ngeen lu tax nga ne doo ko yéeg ndax dund bi ngay dund oto bu amul te bi gasoil lay sol. il faut mu yéeg ko. mais mais la wax de dëgg li la wax addina bi pétrole lay doxee. bari pétrole bu yokkoo suukar si sax day yokku. lu yooni pétrole parce que loo gis addina bi ni muy fonctionner c'est le barrique de pétrole. ma ne monsieur Xuma dëkk bi dund bi dafa metti. nee hmm. nga communication amul c'est vrai que loolu moom yàgg. 2002 déglu ma waxal la 2002 2002 laa lay ñëw 2002 avant ñoo attaqué avant guerru Saddam Hussein bi di jóg. Hmm. Irak guerre Afghanistan bi di jóg gasoil c'était une litre de cent cinquante. Hmm. juróom fukk cent trois cinquante bu guerre bi jotee jógee. américain foogoon na ne guerre bi c'est une une histoire de vingt quatre heures quarante huit heures. mais guerre bi dafa de vingt ans. ci la pétrole bi yokkoo gasoil bi yokku essence bi yokku denrées yi di yokku ñu ñëwaat fii guerru Russie Ukraine euh, euh, euh, Chine tay te xawma Taïwan ñoom ñu nga ne di menace ku nekk nga menacé di pare pour guerre mm. yaa ngi dégg li ma la wax loolu yëpp mi ngi am. pétrole gaz buy jógee Russie Ukraine engrais urée blé loolu yëpp di jógee ci réew yoo xam ne ne dafa nekk ci en en confusion kon nag mun na bañ a métti si ñoom nag ñoom ñuy guerre di dee mais mun na métti si ñun africain yi. parce que ñun produit wuñ dara. mais mais nguur nañu génnee rek yi ngeen di yëg yëg nañu ko ñun ñoo ngi def. mais li ma wax de. déggoo li ma la wax de wàññi rek tuuti li ma la wax de. communication moo des ci gouvernement bi. sénégalais waxuñu communication góorgóorlu lañu. waaw d' accord mun nañ communiquer. xam nga mbir tey tey jii barke sëñ. parce que bu kilee di yokk gis nga yow ma wax la tey loolu quand même te am na loo xam ne ne tey bu ñu xamee ne lii war na am di la ko invité dugal ko ci sa mentalité avant moo yegg si. kon même bu yegsee doo ko yëg. waaw communication par anticipation. déggoo li même bu yegsee doo ko yëg. gi nga keroog bu président commencé suspensionné pétrole bi. suspensionné gaz bi gars yi dañoo nelaw foofu lañ commencé woon di communiquer di wax. Mali yokku na Guinée yokku na Gambie yokku na ñun ñu Sénégal yëm Sénégal rek moo am benn prix gasoil dix ans. dara mhm. yokku dix ans. suukar si benn prix la amoon dix ans. ak ceeb bi maa ngi ñëw yokkut manqué wut. ceeb bi benn prix la am dix ans yokkut manqué wut. Euh, diwlin bi même chose dix ans yokkut manqué wut. mais à part depuis 2012 ba léegi mosoo dégg ceeb am na Sénégal am na rupture ceeb. mus géej na koo dégg te Sénégal danaa am rupture ceeb bu métti bu métti sax. waa mais bu commencé yokk sax nga góorgóorlu subventionné tuuti. bu méttee méttee bu mbir yokkee cent franc nga fexe ba dugaloon sénégalais yi fukki dërëm ñoom ñu góorgóorlu ñu ma la yokk nga jàpp sa njàmbur. kanam bu méttee méttee métti laa la wax. mais nangul la nguur gi na góorgóorlu. yokk nguur gi déggoo li déggoo li ma la wax ñaax nguur gi mi ngi def li mu man communication moo yor addina communication bi moo des la preuve te France bu génne nga yaakaar moom man àddina bi seen communication moo baax France tey France bu waxee nga ne moo mën États-Unis moo mën Russie moo mën lii moo mën laa <laughs> fekk France seen communication moo baax France bu leen bu ñu leen doon bu la la deuxième guerre mondiale. mais gouvernement bu télécommunication moom war na non non mun na bañ a mun a bañ a lem bëri mu jox en tout cas les moyens président li mu wax mi ngi koy def ci ñi mu dénk président c' est une structure boo xam ne yow tu es le président de la république mais ñi mu jox ku si nekk ak lim la jox heure boo xëyee. mais na leen dàq boo xëyee da nga war di communiquer ci li nga def. mais na leen dàq kon. tey gouvernement bi mu ngi liggéey liggéey bu mucc si ayib. man mu wër. moom bu dee mu nanguwul dem mais na leen dàq ñoom ñoom. déggoo li man mi wër Sénégal xam naa mi ngi liggéey liggéey boo xam mais kenn nangu ta communiquer. communication ça dem. bu dee moom yàlla may ko sens mu am ay nit ñu baax ñu mën a communiquer te moom rek président de la république mënul yore réew mi foog mu am équipe équipe boobu bu dee c'est une équipe incompétente ñaari possibilité la soit dafay dem mu ànd ak ñoom ñëpp wala mu daaxal leen mu àndi ñenn. c' ça loolu la c' est que président moo war a jël la son responsabilité boppam. wane ne moom mu xam ne ne. président dafa sonn déggoo li ma la wax de mu xam ne ne moom la ñu dénk réew mi dénkuñ ko keneen. Hmm. ëllëg lu man tax xew moom mooy rendre compte le peuple sénégalais. c' vrai merci beaucoup grand lan ngay tëjee on arrive à de cette émission. ñu <laughs> may tëjee mooy. Uh-huh. comme li ma la wax le président de la république na jël na jël affaire bi sur euh, son destin en main mu xam ne moom lañu fal mu xam ne moom la jeunesse si ndawam yu ko wóolu woon jox ko na leen wóolu delloo leen liñ ko dénk ndaw ñu coordonné ñu avancé parce que mosoo dégg guerre bu ñu wax ne yóbbu nañ mag ñaa guerre gone yooyu jiitu de di guerre. kon début du du gone sax du guerre mag sax <laughs> guerre physique. communication ak réalisation. Uh-huh. yaa ngi dégg li bala ak yeneen ak yeneen. xam paa yi nañ lem seen bagage. paa yi kay bu man kay président bu ma dégloon paa yi yëpp daf leen war dafa war dafa war a benn structure dugal leen fa ñii mu def leen ambassadeur. Uh-huh. ñu dem. ñii mu def leen ay ay conseil spécial baleen ñii mu def leen ay conseil ak yeneen ak yeneen mu jël la jeunesse jiital ko kanamam. merci beaucoup merci beaucoup mbokk internet yi ñoo leen di jaajëfal di leen dig daje ba beneen yoon jërëjëf merci beaucoup